mooy taawu limaamu baayam amul photo moo nekk ca yoof moo puusoon géej gi mm-hmm. kii mooy taawu Seydina imaamillahil mahdi Serif Abdoulah xalifa bi yàlla na fi yàgg mooy taawam ñi ma la wax ñu topp ci topp ci mais nen di gis nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam démb da ngay ñëwaat démb Muhammad ba mu nekkee ca xaaru dafa am lu ko fa fekkoon tëbul tëb rek ni ni ni ajiboo daay lee déedéet bàyyi laay leeram moo tuxoo mag ñëw dugg ci xeeru ngor yi def fi junniy at junni at yooyu guddi gu nag sanga bi di wëral boppam addina bi mu waree nee na gis naa ci xeet bi ma war a dal ba mu leen gisee fan ak fan la ak fan la mooy presqu'île du Cap-Vert gi fii la bàyyi laay taxaw avant muy woote dara nekk fi dara amu fi waaye bi fi leeram duggee la taxaw ne aji boo daaye laay kañ ci 1883 su fekkonte ni dafa xëyoon génn ne aji boo daaye la mais nen ne kan la yàlla may nga jël sa baaram di puus géej mi dem kan la yàlla may ban doole la nit war a am ak xam-xam boo mën a yor baatinu géej newul ci dugg xalwa nekkul ci yooyu Seydina Limaamu dafa ñëw ni yéen xamu leen ma waaye géej gi xam na ma maa ngi koy puus bi mu joxe ñee géej la géej gi àndu foofu lañ ko tëral ba mu génne àddina te li mu àndaale li mu àndaale muy ay bagaasam mooy lim si jëkk andi mooy problème mu kas li yàq àddina ñun seenu boo demee boo demee Yoff amul tëgg mhm. amul séeréer amul tukulóor ku la neex ngay bàyyi laay dafa ni sant leen laa ilaha illallah dafay bañ problème mu ethnie dugg suñu biir moo tax yoof koo fa jox loxo ni nga laa ilaha illallah mun la laa ilaha illallah mais Mohamed màkk ñaata sant daa fam màkk waaw euh, laaj naa la ko sëriñ waaw amul sant ah, yonente ñaata yonente lan cent vingt quatre mille prophètes kan kan moo ci sant Njaay wala Jóob amul mu Isa alayhi salaam la. Moussa mhm. alayhi salaam la Idrissa alayhi salaam Yaxya alayhi salaam bàyyi laay nag laa ilaha illallah boobu la indil boppam. te wax laa ilaha illallahu danay waral jigéen yàlla ak firdawsi ak dem ca péeyam ba fan mooy péey ba. bàyyi laay ba mu indee laa ilaaha illa indi ko tasaare nu ko moo tax laayal boo ci nuyu mu ne la laay ëpp naa def nit nuyu la nga ne ko santuma laay ëpp naa def nit sant nuyu la nga ne ko santuma laay tur yàlla yi téeméeri tur la quatre-vingt-dix-neuf de Dieu ñoom moom la ñu jël wane ko ñu ne benn bi koo xam àjjana nga jëm ban la ban la sëriñ bi arrazaq turu yàlla la mhm. am na ko tudd arrazaq mhm. man tasa am na ku tudd maalik mais ko tudd allahu amul moo tax bàyyi laay bi mu ñëwee dafa ni sant leen laa ilaa laa bu leen wax sama kër géwal bu leen fi wax tëgg bu leen fi wax séeréer ñu ne ka lu tax mu ne damay bañ ëllëg comme que dañ leen di sàng ferkaal laxas leen suul leen ci biir suuf ku ku ni yee laa ilaa ilaa lan lay yeewu ni sant leen laay balaa ngeen a dem am de lalaahu lalaahu xërëm yàgg lu fay xam ba lan moo tax xërëm yàgg lu fay xam ba Mouhamed na ne xatob uh-huh. lan moo waral xërëm yi ak rëy xërëm la uh-huh. bañ a nuyoo xërëm la alkibru bañ a rëy dafa ne yaa moom nit ñi xërëm la uh-huh. yooyu ñoo fi amoon bàyyi laay ñëw tasaare ko